Voilà, amis fidèles téléspectateurs de la Prestige TV, bonjour et, bienvenue sur la télévision régionale. Alors aujourd'hui, nous sommes euh, le 23 juin 2023. Nous sommes fini chez Petit Tchali. Nous avons donne une date historique, Grand Tchali, autant pour moi. Nous avons donne une date historique à la découverte d'un trésor, à la découverte

ko ngir lan ngir eh, may ko ndam ngir lan ngir indi teewaayam fii waaye tamit ngir indi eh, kaaraange gi waaye laata loolu rek eh, dama leen di bàyyi mu nuyu ak moom mi nga xam ni rek moom mooy ndeyu mbind gi alors papa Michel ñu ngi lay maa ngi lay fay di leen gërëmati comme d'habitude Isaac ni mu ko waxee yàlla moo ko def ci xolu ndawam comme ni mu ko expliqué su ma leen expliqué lépp day gudd mais dëgg bi ci nekk lépp lépp. di gën ko découvrir parce que dina leen ñaan képp ku mënu ñëw fii aussi bo boo defee boo jotee photo bi ci sa portable nga ñaan ci dina la may parce que historique bi su mu jógee la jóguma jóg rek ne damay defar benn grotte ça fait près de 6 ans à 7 ans mu di ma ko sant parce que dama jëkk gis image boo xam ne bii comme benn grotte bu nekk ci kaw kaw kaw kaw sama bu sore bu mhm. tolloog xotu almet mu dem seeti suma benn xarit labbi boo xam ne de frère la ci man sax

mais nag dafa mel ne daf may insister pour mu def ko parce que l'abbé boobu ma leen wax dafa mosoon feebar comme chaque trois trois heures du matin damay jóg la Vierge Marie ci chapelet euh, ma ne xaaral ma prière dafa feebar ma connecté wu ci gorot boobu mais dafa mel ne dama doon gis dama gis nit ñi daal mais dama doon sentir ñu ngi dajji gorot bi ñu ngi dajji ko ci côté droit bi ma envoyé ko message ci guddi googu ne ko l'abbé maa ngi la doon prière mais dafa mel ni mu ngi dajji gorot bi à la droite force yi gisuma leen. mais maa ngi koy sentir mënuma continuer à prier on ne peut pas détruire l'amour maternel de maman Marie pour nous mu envoyé ma loolu ma continuer ñoom ñu nekk durant trois jours ñu daajal gorot boobu vierge bi tegaat fi beneen gorot ci même place def ci nag benn croix bu ndaw bo xaw ma nu mu demee daal mais suñu benn dëkkandoo muy dem rom mu ñew andal ma kaddu andal même ki croix bu ndaw comme bima ma doon gis ci image yi image yi mu gis. ma jël ko nag fekk defar naa beneen grotte bu mel noonu bu en bois dinañ ci bu ñu jógee fii dinañ dem mu wane grotte boobu. ma tef ci courant boobu di ci prière di prière ba temps yi passé les force du mal. defar na benn attaque bu métti métti métti mois de mars bii passé ci biir euh, euh, cauchemar parce que dañu wax gént bi tubaab day wax cauchemar. rêve ak songe. Euh, cauchemar ay jifa saytaane la moo lay attaqué. bu dee nak di nga yëndoo ak yoy mom ngay gént yoy ci passage yi mais songe nak ci yalla lay joggé bon mo am attaque bobu nak attaque bu metti sax fi ma ki songé ben girafe mo commandé won attaque bi fi ma songee benn force mo mu yëkëté bon fi ma yëkkatee daf jubal directement ci gorot bobu mooy gis ci ma ci kaw ma dem dem dem ba ñom ñu upp mu doole dem ba bëgg ma képp rek j'ai crié trois fois le nom de Jésus Jésus Jésus Jésus tu l'as sauvé Euh, pour pour wan leen véracité dëgg bi ci nekk am na benn jéeg bu ndaw ay quarante ans yooyu bi may vivre kii boobu moom moo ngi koy gis nii parce que yàlla di ko may aussi seex la mu ngi doon gis mu ñëw pour sauver ma euh, ñi fa nekkoon tere ko jigéen ñoo gënoon bari ci ñu ma attaqué woon mais ma forcé ba dugg si fekk muur nañ ma sër di ma bëgg faagaagal daal moom mu gis loolu ci li yónnee suba seel mu ne nañ mu toggal ndax parce que li mu gis comme li ma def a yooyu sarax yooyu

may def loolu def loolu ba ba ci karo yi barke démb. Mhm. karo kas laa bëggoon def mais mu jékki-jékki mu ne dama ne non non non defal karo yi kër muy karo yi ngeen di gis xam nga kii ci laa ko defal karo yi ba pare di ko ñaan nag képp koo xam ne kii ñëw nga fi ñaan wala nga ñaan ci à travers image bi ngay yore ci sa portable yooyu parce que dinañ leen ko jox ci Facebook bi euh, ñaan naa ko mu faj sa aaji mooy ngay wut doom wala nga am. Euh, mariage bu kii si kër jaxasoo wala attaque seytaane parce que seytaane mu ngi fi attaqué wala nga am feebar nga ñaan ko ci dinaa la jox sama numéro téléphone comme ça euh, ñu mën a nekk en contact. effectivement voilà. alors euh, vous voyez yéen a ko dégg c'est un témoignage vivant. on dit que la foi sauve, la foi délivre. Mais comme il a expliqué, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus est délivre aussi. Il a crié trois fois le nom de Jésus et il a dit Et je pense que Michel, ça répond à ce que la Bible dit. Il a été donné euh, sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et c'est Jésus même qui vous a conduit aujourd'hui à faire euh, ce merveille. jagleel ki nga xam ne moom moo di euh, Mariama te li nga xam ne moom nga ci ay ñaan papa Michel mu daal di doon euh, mbir mu am solo alors papa Michel ma bëgg la laaj benn benn mbir tey jii on voit beaucoup euh, de vieux beaucoup euh, de personnes qui nga ils disent que euh, certaines dévotions à la religion appartiennent aux jeunes c'est à la jeunesse de se donner euh, à la vie chrétienne à la religion à la sainteté tout ça à la vie de prière mais on remarque qu'il y a une am dévotion pour dëgër këng ci li alors comment est-ce que vous ba dara Michel la moo war a euh, yow tey ji maanaam bokk ñi nga xam ne tey ji jàpp nañ ni ndaw yi seen jëm bopp ñoom ñoo war a dund euh, li nga xam ne rek moom moo di euh, la religion dama di yërëm sax mooy ndaw yi muy yenn mag yi doon nañ def émission yi ñu doon def à la télévision doon nañ ko expliquer Jésus mooy yàlla muy Jésus kenn bëggul bokkaale te évangile Paul ci dimanche ba le passé dimanche le corps et le sang du Christ mm-hmm. ci lettre Paul ba mu bind Corinthiens yi daf leen ne euh, parce que euh, Corinthiens yi dañoo euh, baptisé woon au nom de Jésus mais terewul woon ñu doon def la pratique religion grecque parce que grec yi ñoo leen colonisé woon grec yi dañ doon jël chaque année chaque fois ñu dem seen yàlla yi def ay sacrifice rey toog lekk kii kii yooyu Paul bind leen ne li ngeen def du yoon parce que une fois que nga baptisé Jésus waratoo lekk sacrifice yooyu yàlla dindi na sacrifice depuis ci daamoon na am sacrifice ba humé sax te bi mu ne Abraham sarax mu sa doom bi jotu koo rey parce que dafa dem ba yëkkati kii bi mu ne ko bu laal xale bi ci la bi dindi sacrifice humain bàyyi sacrifice euh, mala yi ñu doon rey parce que Jésus moo joxe boppam pour ñun kon nag bu ñu nekkee di euh, le corps du Christ bu ñu mun mën mënuñu ko war ñu ko booleeg beneen sarax beneen sarax yëpp yi ñuy def yëpp ci affaire euh, tour yeeg yu kenn chaque fois ñu wax ko mais dafa méngoowul ak religion catholique parce que boo greffé ci Jésus mënatoo greffé ci keneen pour loolu lañ wax ñu ñaan pour nag ñu ne ñom suñu réy seen sacrifice ñun mënañ ci bañ dem mais yapp bi dess dem dañ ko jaay est ce que mënañ ci jënd pour ne leen moytu len parce que du pour yéen dañ xam ngeen li ngeen def mais ñi leen jege duñu xam lan ngeen def bu leen yak seen gëm aussi ngeen moytu yak ngëmu ñooñu ñu def leen tere woon moo ñu téré yàpp sacrifice waruñu koo lekk parce que bu ñu sacrifié pour ay tour boo ko lekkee rek bokk nga lekk ak ñooñ te lekkatoo kii nekkatoo euh, ci Christa bi waaw moo tax ñu ne moytu leen ci yooyu malheureusement nag ñun xamuñu pour vous dire que dëgg-raay bi nekk ci Jésus balaa attaque boobu dal ma quelques jours avant ay trois jours avant benn muus bu ñu takkal téere ci ndigg li lañ sànni ci biir kër gi fii.

yu bëri mënuñu ko wax mais chaque mois de no octobre novembre dafa am am vision yu may gis ay vision yoo xam ne mën ma ko nettali fii mais pour war ne lool am na euh, benn mbokk musulman la mais mu ne ma gis nga fi ngay gisee euh, grotte Mariama bi man fa lay gis la croix de Jésus ak écriture yëpp te saa yu ko bëggee gis-gisu témoignage de musulman mun da koy gis si kaw asamaan ni ma koy gisee noonu hmm. keroog dañuy waxtaan waxtaan bu xóotu xóotu ki toogoon ak ñun mënu xam dara mën na ko lool c'est le monde spirituel le monde spirituel quelle que soit religion bu nga nekk boo takkoo ci yàlla rek dina la woon yoo xam ne ñii les humains la mënuñu koo gis kooku maye yàlla la waaw yàlla la. voilà mu daal di doon ab euh, mbir mu am solo daal di Euh, jàngat bu am solo bi nga xam ne papa Michel war nañu ko ci li nga xam wàllum papa Michel lan nga ñu ñëw wax ci li nga xam ne moom moo di gorod gi nii nga xam ne moom la ñuy ñëw présenté euh, non seulement waa Thiès mais aussi waa Sénégal gépp mais aussi waa adduna sépp ndaxte dina jaar fépp ñëpp euh, dinañ ko gis te li nga xam ne moom nga ci wax yaakaar naa ne képp ko dégg rek dina bëgg a découvrir gorod yi alors lan mooy li nga xam ne moom lañ siy ñëw wax ngir ñu daaneel foofu gorod gi comme ni ma waxee du gorod bu mu jékki-jékki rek kii ko mais moom moo ci insisté ay 6 mu ko

domam yi te jésus jël di ba ci yalla neen ko mo gis gis ni yalla wa te ngeen comme nim leen ko dama leen ko ñaan ngir yalla su ngeen ko mënul bayyi ay dem dik lu la metti nga dem bon ci maamul yi quran courant yu yag yi bax na dal mais finalité bi du bax parce que ñoo liñ la defal en compensation il faut nga jox leen dara

def une cricticité entre deux bougies Nous avons def une branche de biais ñu malade aussi couvrir ko prière ci dënn bi ak morceau viatique parce que esprit est nga il ñaan bay de Il pour fit bi su ci yaram bi capté pour capté viatique comme ça nous mën pas capté fit parce que fit bi est ko il yàlla moo moom fitam waaw ñu doo ko xam mais gis muy génn àddina yooyu di ci am attaque yooyu attaque parce que ki la defal moom lu mu la may rek da lay laaj mhm. récompense mais yàlla laajul dara ci ñun yàlla mooy que ñu ragal ko crainte di dir sax bu baax ñu ragal ko ni ñu koy mooy ñu jaamu ko jaamu ko moom kese moom ci boppam daf ne man yàlla ku fiir laa bëgguma ñu mooy bokkaale religion boo dem yàlla bëggul ñu bokkaale ko te yooyu bu la jàppee muy ci religion catholique muy ci beneen diine musulman am na ay alxuraan yoo xam ne day dàq saytaane boobu te da koy rey da koy rey mhm. ci ci kii mais bu dee maamun yi dañ leen di reyal nangam ak nangam contre ma leen de parce que je suis trop petit leen mais bu fekk ne seriñ bu lay ñaanal ci alxuraan baax na parce que yàlla lay tudd foofu te yàlla day dàq saytaane boobu da koy rey sax waaw noonu la religion catholique mètre s'appelé la dañ ne moom mooy seen yi enseigné woon Satan euh, en enfer kii fële ci asamaan mooy le rosaire là mm. si bi boo koy kii bu ñu amoon temps bu ñu amee temps dinaa expliquer expliquer origine rosaire ak ni ngeen di war a defee prière parce que bëri prière dina am jérusalem déedéet dafa am voie boo war a suivre pour nga gis yiw yi te wóor na ma ne ko ci ñaan ci kii nga jaar fi nga jaar da ngay gis yiw li nga ma mën ci yàlla ñaan ci gorte gorte bi mm. di nga ko amee donc mi ngoog yéen a dégg appel bi nga xam ne adresse na ko mu daal Eh, bu am solo dal di rappeler rek li nga xam ne moom mooy eh, li yàlla wax eh, Dieu lui-même il a dit je suis jaloux qui ne partage pas ma gloire avec les hommes alors bëggul ñu koy bokkaale bëggul ñu koy uti feneen moom fi nga xam ne fa la bëgg ñu koy uti bi rek mooy fi mu nekk ci kàddoom ci li nga xam ne moom la wax loolu mooy yàlla ñi nga moom mooy sàkk sàkk asamaan sàkk suuf alors mbindeef mu sàkk rek santu nga daal di bokkaale santu la nga daal di dem uti leneen santu la nga daal di uti pexe feneen wante nga ñëw ci moom rek li nga xam ne moom moo am saafara ci lépp donc mbokk yi li nga xam ne moom la ñuy ñëw def rek je vais vous laisser ñëw contempler li nga xam ne moom mooy euh, grotte bi fi nekk mu nekk rek ab joyau ni ma ko waxee sànq rek ab merveille bi nga xam ne euh, sànq nañ ko fii nii nga xam ne moom moo di euh, Grand Thiady par rapport bi may gis mais su may prière fii à 3 heures du matin mhm. day mel ni surtout prière pour nit ku feebar wala examen yooyu mhm. damay ci bële ci kaw parce que nee naa dama koy gis 24 heures sur 24 24 mhm. heures damay nekk connexion moom damay toog fii ay 3 heures matin bi prière mais ci boobu lay connecté wu comme ça ma prière ñu bëgg def examen yeeg affaire yooyu. ba pare yore chapelet bi mu exemple de joxoon bi mu nekkee Rome euh, di euh, congrès bi mu demoon à Rome. Mhm. ci à partir du chapelet bi mu exemple de joxoon à Rome. Mhm. bi mu fi nekkee congrès waaw ah, te à chaque fois bon munoon noné di nga gis kii mais je sais que comme ni ma waxé waxee. Mhm. amoon naa protection te danaa protéger ay nit. te li mu fàttali yok ci groupe bi. dafa bëri saytaan dafa bëri doole mais grotte bi non seulement pour protéger suma famille mais day protéger pour protéger la quartier bi ak képp ku yaakaar ci comme comme ni mu ko waxee képp ku prière ci moom li nga li nga bëgg boo ko diisee dina la ci protéger parce que yaakaar naa ci dama ci am yaakaar bu wóor sax yaakaar bu du pour man dong mais képp ku ku ñu la ñaan quel que soit sa sa soxla dina la ci jàppale. ñaar ñaata at la def ba nga ba nga taxawale groupe bi lépp quoi monsieur bi ni ci biir fii. bi ci biir ni mhm. minimum 5 ans war na mën cinq ans. war na mat ans wala ko waaw. parce que depuis bu mu gisee apparition bi ci kaw fele ko mhm. mën mo defar man na defar bi en attendant sama xel nekul won sax ci ki bi mais finalement à la longue muy prière melni ni daf imposer mo def benen bi pare même cousin bo xamné bi mënu mënuma dañ waron defar man rek effectivement sama xel ak ngi mais bi ma sauvé keroog comme ni ma leen ko waxee Kosuma bi mu jógee laa ne automatiquement xaaral ma def ko mois de mars bi passé ci temps koor gi ci laataane rek ma ne xaaral ma sóobu ko oto kii ko ci coup bi aussi c'est na ko. d'accord jar ko. alors laataan lan nga ci bëgg a yokk rek li nga xam ne jotuñu ko waxtaan. bon ni rek comme ni mu wax rek ñaan nit ñi ngir yàlla nit ñi mhm. wóolu leen ñiiti euh, diine yi. wóolu Mariama wóolu Yeesu fi mu jóge bu ngeen ko yo wóoloo mom mo leen di japp parce que dañ ne euh, so soxla dom ji da ngay jaar ci yar bi ci yaay ji so soxla Jésus ci yàlla ci ci Mariama nga mën di ci yaay ji pour jot dom ji dom ji mo la yóbbu fa Yalla comme ni mu ko waxee je suis la vérité le chemin la vérité et la vie qui m'a vu a vu Dieu su ngeen taxaw ci moom rek quel que soit problème bi mu ngeen a am rek ngeen wóolu ko rek di leen ci jàppale. alors yéen a ko déggandoo amis fidèles des spectateurs de la prestige comme je vous l'avais dit. C'était un jour historique, ce 23 juin 2023 fini Tigran Chali, Grand Tchali, au Sénégal donc nous gis joyeux bi nga que rek Papa Michel a dit indi pour la gloire de Dieu alors comme on le dit souvent Dieu continue à inspirer ses serviteurs il continue à inspirer ceux qu'il aime et comme on le dit souvent euh,

TV waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax ki xam ne moom lañ ci àndaloon moo di suñu technicien euh, Doudou Dieye di jaajëfal équipe Prestige bi yëpp resté scotché ci yeneen événement yi xam ne ñu ngi ñëw ci biir Prestige.